Barthélemy TV maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di amat ci contentement di jàkkaarloo ak yéen xam naa ni nag namoon ngeen ma lool yéen sama xarit yi waaye maa leen law lool tey nag dama dellu siwaat ak yéen ci li nga xamante ni bi moom moo di doxantu bi nee leen saa su nekk li ngeen bëgg rek la ñuy doxantu di leen ko indil tey nag maa ngi fii eh, ci buun seet si benn artiste boo xamante ni bi eh, kenn dootu ko présenté ti eh, ñu gën muy turu Astou turu Fanding gannaaw sax ay euh, film yu bari yoo xam ne jot na ko tourné Fanding bi moom la nit ñi gën a ràññeeku tey sax suñu waxtaan ak moom Fanding bi dina ci am lu bari loo xamante ni bii nii euh, ci lañu war a waxtaanee laataan loolu nag dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog ñi ñuy seetaan rekk ñu sekk a ah, di la ziar di la màggal di la ñaanal jàmm naan tànk yi ngeen dox ba ëgg si fii yàlla na leen ko yàlla fay yiw ci barke ah maa ngi nuyu sama fans yëpp mag ak ndaw góor ak jigéen sama mama yi sama papa yi sama tonton yi sama grand sœur yi yéen ñëpp maa ngi leen nuyu ku ci nekk tur ak sa sant di leen ñaanal jàmm maa ngi lay déglu ci question yi. ci xuus nag laata rek ñuy ñëw nag ci biiw li nga xamante ni bii rek moom moo ñu fi indi dañuy tàmbalee ak ci fi nga xamante ni bii yow foofu nga tàmbalee nag nga nekk euh, koo xamante ni artiste comédien nga euh, di yëngu ci waar bi d'abord lan moo la dugal rek dama ko yag bëgg depuis bima nekké xalé dama doon sacc di dem ay répétition jambour di seetaan des fois ma dem salu jambour di seetaan ñu tej buntu yi génne ñu ñu taxaw ci biti des fois suma déggi spectacle amna sam papa duñu baye ñu dem mais daf ñu yoon des fois bikit ñu jaar di daw seetaan yeur du ñëwaat tok ma yag bëgg affaireu art mu nekk ci sama dret nekk ci sama xol nekk ci sama lepp adina lolu moma duggal tay ji wax deug yalla ci art bi nga xamantene bi moy métier théâtre bi kañ nga ko tàmbali waa man de suma juumul maa ngi ci depuis 2015 yooyu laa commencé nekk ci milieu art bi ma nekkee ci troupe bi ma nekk nag ngi ciy bëgg def 5 ans waa wa fa laa tàmbalee waa bi ma tàmbalee ba tey wax dëgg fa yàlla dañ may woo ay tournage may dem mais troupe troupe wax xippi bu askan bi Mhm. maanaam su ma déggee ni ngay waxee euh, di nga def yeneen tournage yu bokkut ak troupe bi mais daal ci troupe xëppi askan wi foofu nga bokk waaw maa ngi def ay yeneen tournage parce que tourné naa fi Dessé Croisé tourné naa fi L'amour et ses principes tourné naa fi Nawtal tourné naa ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne bii macha allah mi ngi bëgg a bëri daal coow li nga xamante ni bii nii moom moo lëmbee réew mi gannaaw rek yi nga wax yëpp ni tourné nga ko te tuddoo ko muy euh, théâtre Fanding tey jii nii ñu fi toogee euh, moom moo ñu fi indi ñu war cee waxtaanee mais laata ñuy dugg euh, ci coow li nga xamante ni yëpp am nga ko ci ndax mën nga ñu wax théâtre boobu noonu préparation yeeg wàccaay naka nga def ba bokk ci biir ak nekk ci actrice principale. waa metti na trop ndax kenn ku nekk xam na ne nekk ci milieu art dafa métti di nga dégg lu nekk. di nga gis lu nekk di nga daj lu nekk mais sa bëgg-bëgg ak sa ngëm-ngëm rek moo lay eggale fenn fi wax dëgg yàlla préparation yi metti na trop di nga sacrifice bu nekk di nga ko def baat waa nekk na nag benn euh, film boo xamante ne bii ñu ngi koy wax Fandi mooy film bi nga xamante ne bii macha allah askan bi yëpp moom lañ ma xamee ci laa gën a fesee daal muy Fandi ñu koy tourné mu nekk tournage boo xamante ne bii drame la nekk drame bu doy waar ak bëgg-bëgg bi ma ci am ba tax ma koy xëccoo ak samay morom ba bis ñëw tournage jot ñu ne kat carrément Fanding yow asu Fanding bi ñu doon répété yow yaa koy tourné ba mu jëra sama morom yu bëri sax dañoo mujjee bàyyi dem tournage boobu noonu fekkeew ñu ko mhm. waaw ndax liñ ma def actrice principale bi Fanding bi depuis kañ euh, ngeen ko tàmbali Fanding bi ñu ko tàmbali bi ñu ko tàmbalee ak léegi daal presque quatre ans ci la toll mais daaw jéeg la génn daaw jéeg la génn muy soog a génn waaw parce que bi mu génneeg léegi def na deux ans waaw def na deux ans parce que tournage yi dafa yàgg trop yàgg na trop ndax yombul dafa metti boo ko seetaanee ngay xam ne yombul metti na trop trop trop moo tax daaw jéeg génn diggante daaw ak daaw jéeg daal la génn dëgg yàlla damay wax pour mu leer bëgguma wax làkk benn français wala benn làkk boo xamante ni dina ko dégg di am loo xamante dañu am xel ñaar damay wax olof yu leer nañ ñi parce que fans yi ñi nga xamante ne bii dégg nañ olof bëri na trop su ma sañoon damay wax ak ñoom ci olof bi nga xam ne moom laa nàmp ñoom ñëpp ñu déggandoo ko ak man loolu moo tax may wax ne ci biir euh, Fanding boobu noonu nga nekk ci actrice principale yan jafe-jafe nga ci jànkoonteel tey ba tax nga daal di ñuy fii nii tey jii nag man maa ko sàkku ndax man maa leen woolu fii ndax dama ciy dund lu ma metti sama ay fans di ci dund loo xamante ne bii xëy na ñi ngi yaakaar ne man la te du man ndax damay connecté wu sax Facebook ñu may envoyé message nan ma yow Fanding lan moo tax amoo ite ñun dañuy déggante ak yow dañ lay woo téléphone dañ lay envoyé message toujours maa yaa ngi wax ak ñun te faale wooñu te du man Fanding tey dama pare pour wax ak sama fans yëpp xamal leen ne du man Fanding ngeen mën di waxal mësumaa dégganteek sama benn fan sa mësumaa gisanteeg sama benn fan sa amul koo xamante ne bi mës naa yëkkati téléphone am ne Fanding diw mii kat dalaa bëgg mi ngi dakaar wala mi ngi France wala mi ngi feneen ak feneen déedéet parce que mbubboo bi may mbubboo xëy na da cee doyalagul waa ki may mbubboo moom duma tudd turam parce que li may wax nii Sénégal ñëpp a ciy jot mais moom mi may waxal maa ngi toog jàkkaarook àddina ñëpp di ma teg bët moom xam na ne lii may wax moom moo ko moom te ñi may ñi may déglu tamit bu ñu ma dégloo bokk ak man liggéey bi nañ xam ki moom wax jii nii parce que ñi ngi mi ngi may mbubboo guddi di ma mbubboo bëccëg di ma mbubboo suba di ma mbubboo ngoon ah, naka naka la lay mbubboo maanaam mbubboo bi boo koy wax ci euh, lan lan nga ci jublu mu ngi lay mbubboo mu ngi lay mbubboo lan la def ba tax nga ni def lay mbubboo waa lim def moom lii rek la metti na ma torop ba sax sama rongoñ génn na ndax doom aadama mënul toog ci këram zappe jël téléphone jënd connexion ak connexion ni mu seeree di siifur Fandeng ba ay rongoñam di tuuru mu am lu muy yëg ci Fandeng bëgg ko te yàlla rek tax ak yonent bi xoolu ci dara bëgg ko ngir mbëggeel bëgg ko ngir lenn mais da koo bëgg rek te yàlla tax ak jëmmam ji ma gis tax mu jaral ko lu nekk ci àddina nit ñi dañ may woo téléphone ci téléphone am numéro mooy affiché ci ligne bi ñu jël numéro woote ci ne man kat Fandeng laa soxla woon parce que dama koo bëgg te yàlla rek tax moom ci boppam danaan Fandeng yorul téléphone moom ci boppam jëmm jooju am na ñoo xam ne da leen di jaral ñu yëkkati seen xaalis envoyé ko ko ne ko joxal funding pour mu jënd téléphone pour rek moom mu mën a man funding mën a déggante ak ay fansam moom day jël xaalis bi def ko ci poosam nit yëkkati na portable te du benn nit moo ko def du ñaari nit moo ko def du ñetti nit moo ko def sama ay fans laay waxal ñu ngi may dégg damay wax rek te yalla tax ndax laataa ngeen di ñew dama japp ba seel julli ñaari rak ñaan ci yalla ne li may wax mi ngi nonu ñoko metti na lol nak ci xol ndax euh, daal di def lu neex sénégalais yi bëgg ko di wote ngir bëgg la jot ngir ak yow wax la ni ñu la ñom mom mi nga bi ni mom mo nekk ci digënté bi ñom xol mais dañ lay ñaan rek nga ak sa xol ndaxte uh, so uh, tambalé joy mal dàkk joy té buma joyé xamna ni émission bi du ag da ngay ak sa xol ngir li ngay wax say fan suñu mën ko dégg uh, tay ji ni li nga xamanteni metti na la so joyé rek do ko wax faaw nga ak sa xol nga mën a wax li nga xamante ni bii moom moo la metti nga mën a génnee li ci xol li nekk ci sa xol comme ça nga xamante ni bi euh, doo du nekkati góom ci sa biir xol bi euh, dina nekk loo xam ni boo ko génnee diñ ko génnee te su ko génnee rek euh, di nga am benn poids boo xam ni wàcc na la dañ lay ñaan rek nga bësanteek sa xol nga mën ñu expliquer mu daal di leer ci suñu bopp yu ñun ñëpp dama jàpp ba seetlu julli ñaari ràq tey ci dëj laa yendu léegi laa ñëw lii may bu dee naa cee wax benn baat boo xam ne du dëgg dëj bi ma jógee yàlla bu ma borom dëj boobu jiitu ci barke Seydina Mohamed amul lenn loo xam ne maa ngi ko fiy wax mu jëm ci sama wàllu liggéey tournage ak répétition te du dëgg samay fans dañ maa bëgg te yàlla tax ba ma xam ko amul lu ma leen jaralut ci àddina ñu ngi def lu nekk pour jot ma man Fandi mais amul kenn koo xam ne ci àddina mas nga maa yónnee un franc ma lekk ko amul koo xam ne mas ngaa yëkkati téléphone portable jox ma ko ma jël ko wuyoo ko mësuma koo gis dégg laa ciy am te Seydina Mohamed dafa am lu ma wax parce que daf ne muñ dafa bokk ci diine yi lislaam doom aadama da ngay muñ soo muñut doo am dara lépp loo bëgg ci àdduna rek àndal sa muñ may muñ di dégg li muy def ma koy muñ di ko muñ di ko muñ damaa muñ ba damaa mujjee sës lii may def nii di ko wax nii pour àdduna bi yëpp jot ci moo tax ma koy def nañ la di yëkkati seen xaalis di ko joxe ci àll bi waaw maa ngi ñëw foofu ñi nga xamante ne bii bëgg nañ ma di yëkkati seen alal di ko joxe ci àll bi yaakaar ne man Fanding maa koy lekk barke Seydina Mohamed mi ma yaakaar dërëmu doomu aadama mësul jaar ci benn numéro téléphone man Fanding ma jot ci li may wax dama koo ñime ragaluma ko te damaa bëgg bu ma paree vidéo bi lépp lu ma ci wax maa ngi leen di ñaan ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu ci kenn dagg lenn na ngeen ma dugalal lépp ci àddina bi mu tasaaroo fépp na si ñëpp jot parce que day lor doomu aadama yi mi ngi may mbubboo guddi di ma mbubboo bëccëg li ma gën a metti ba tax ma woo leen loo xamante ne bi presque man na 4 mois ma koy sog a yëg ordinateur lañ ma yónnee ki ma ko yónnee ak fu mu mënti nekk dina ma dégg man mosuma koo gis xaw ko ci numéro téléphone boobu la woote jot waa ji bi mu waxanteeg moom ne ko man de damaa bëgg Fanding te yàlla rek tax di waxanteek waaji waaji naan ko Fanding yoru téléphone Fanding dina ñëw tey suba ginnaaw suba ba sànq ba léegi waaji ne ko man dinaa ko yónnee téléphone ndax dama koo bëgg te yàlla tax te bis bu ma nee cëpp Sénégal bëgg naa tegante ak Fanding bët gisanteeg moom foto ak moom ba sama mbokk xam ne kii ma bëggoon gis naa ko tegante naa ak moom bët ba tey waajooju dégguma ko gisuma ko ki sës ci waa ji rëkk nag moo yëkkati kàddu yi wax ma ko ne man nag dama lay ñaan ba bul ci feeñ lépp ci kàttanu yàlla naa la ko lijjanti ba lijjanti numéro waaj jox la ko mais ki ma expliqué loolu dafa dem ba ci biir di daw res ndax man su ma xafee ba ne lii la rek lii la. waa ji lan la la yónnee. ordinateur la ma yónnee ak enveloppe gu xaalis moom moom mi ma yónnee enveloppe bi bu ma waxee ba mu jot ci xam nga tey su ma nee temps bi la ma yónnee kenn dina kenn mën naa jug sax ne man la te fekk du moom mais su ma nee enveloppe gu xaalis la ma yónnee li ma yónnee nekk ci enveloppe bi xam naa ko parce que wax nañ ma ko portable bi xam naa ko ndax wax nañ ma ko. portable du dara doomu aadama moo koy liggéey mais na jëfin bi rafet tey jii nii loolu noonu taxul ma woote pour ngeen ñëw fi defoon ma ko de mais pour doomu aadama yi muy lor di ma mbubboo toujours bu jot te pareegul bàyyeegul ndax Fann dugal nañ troisième épisode xaw ma deuxième épisode te tey séquence yi ñu dugal nii moo gën a daw yaram ka séquence yi taxoon ñooñu di yónnee lool tey am na ñoo xam ne buñ ko suivre dinañ jël numéro boobu noonu di daw ci suuf woote ci di laajte Fann. mais Fann kooku noonu di loolu di la mbubboo lan la ci yow. kooku de yàlla moo ma boole ak moom ñu dox daje rek bokkuma ak moom dara wax dëgg yàlla ma nekk di liggéey ak moom damaa nekk di liggéey ak moom mu nekk suñu njiit moom moo ma yor moo ma farme lu nekk ci man moo ko def ci man tey damay toog ñu ne ma ci téléphone woo ma ne ma dama laa bëgg nga ñëw tournel ma séquence nangam nangam ma jël suñu numéro directeur artiste ki nga xam ne moom moo nekk sama manager kuy woote Fanding boo ko soxlaa man moom ngay moom ngay waxal ba pare mu bàyyi ma ma dem ma jël numéro am jox ko kook toog di ko seetaan li nekk ci man ba mu jaraloo doomu aadama bi moom moo ko def ci man waaye nag daf maa dund lu ma metti parce que lii mu def daf maa metti te defuma ko benn yoon nee naa la defuma ko ñaari yoon nee naa la defuma ko ñetti yoon du lekk bi mu koy lekk moo ma metti parce que loolu du dara alalu àdduna la dafay jeex tey fii ma toog nii mën naa toog wax ak yéen ba pare lii ngeen def balaa moo génn ngeen woote ne Fanding lañ soxla ñu ne leen Fanding dee na kon tey àdduna dafa jeex ba pare nit ki buy def na def loo xamante ne bii bu ëllëgee wayam dina rafet doomu aadama boo nekkee boroomi nit da ngay def loo xam ne bu ëllëgee sawa dina rafet mais man sama fans yi laay waxal maa ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax a baax pour une dernière fois mosoo leen a gis Fanding génn wax tey su ma génnee wax rek maa ngi wax ngir li ngeen xamante ne bi yéen a koy jànkonteel li ko dund yaakaar ne Fanding la tudd moom Fanding xamu leen te bëgg gu ngeen ko bëgg bëgg na leen roko raw barke Seydina Mohamed billaay walaay taala li nga wax metti na mais loolu lépp yow naka nga def ba xam ko gannaaw bu moom yow da nga ko jege woon mu nekk sa njiit nga liggéey ak moom tey jii naka nga def ba xam ne moom mu ngi la doon bëggoo ba loolu lépp mu ko doon lekk ci yow. waa ni ma def ba xam ko mooy xam nga doom aadama moom boo amee yar ak teey bu ko yàlla defee ci yow say waajur ñëw mottali ko dara loo bëgg a xam ci àddina rek di nga ko xam. waa parce que tey nekk naa ñoo xamante ne bii ci turub bi mat nañ ma yaay dama leen a jox cëru yaay ñi ma mat mag ma jox leen cëru mag ñi nga xamante ne bii samay morom lañ ma def leen comme samay morom du ma waxal kenn lu ñaaw du ma fawee sama bopp duma ma caaxaanee sama bopp ndax damay toog sax di naan leen réunion nañ ba pare répété nañ ba pare mais na ngeen gën a góorgóorlu na ngeen gën a fonk seen sër image bu mu leen jaral ngeen tas seen sër image bu leen jaral ngeen simi seen tubay boo leen ko image jaral ndax boo leen ko image jaralee bu ëllëgee bu image boobu génnee image du deede te da ngeen di am ay sët bu image boobu génnee tey ji di fàttalee fàttaleeku lu ñaaw loolu ngeen defoon du ko mas a fàtte kon tey ki nga xamante ni bii yéenew leen lu bon lu baax rek la leen yéene di ko wax ak yéen kon tey pour man am na ay nit yoo xamante ni bii ay boromi xel lañ te ay borom bopp lañ bu buñ gisee lu ñaaw luy jëm ci sa kaw dinañ ñoo wax la ko ay nit ñu ma bëgg nag ñu ma jege ñu sos ci moom rek ñoo xam ne du leen nëbbu dara dara dara dara ñoo ñoo sol seen dàll ñëw ba ci man wax ma ko wëlbatiku nag ñaan ma ndimbal ne ma bu ma jàkkaarloog ma mukk wax ko ko parce que man ma sol sama daal dem ba fi dëkk fekk ko fa wax ko ko defuma ko muy dara ragaluma ko tiituma ko mais kon li mu bëgg duma ko am ndax xam nga tax duma ko am day koon ne di dund li muy dund ak samay fans. loolu bi nga ko yëgee ba tey jii moom waxoo ko ci bi ma ko yëgee ba tey waxuma ko ci dara am na tournage boo xam ne dañ koo sumb man ak moom ak ay xale mu tudd mariage forcé nekk ay xale yoo xamante samay moroom raq lañ ma am koo xam ne man maa ci nekk magam mën naa ne film bi sax actrice laa ci ba tey. benn séquence bi ma ci tourné bi ñuy waaj a dem Touba ba ma ñibbisee Touba ba tey tëgg ma fa sama tànk moom xam na ne man yëg naa ko woowu ma téléphone envoyé ma vocal xaw ma damaa boole ko xaw ma parce que démb rek maa ngi dégganteeg koo xam ne nitam la mu mi ngi may waxtaan ak man xamul sax ndax jote naa ak moom dara mu ne ma gis naa mu dugale la te man mi mu dugal estati damaa boole ke gisuma ko xawma ko yëguma ko tinuma ko nga lii léegi lan nga nar da nga koo nar a porter plainte da nga ko nar topp ci li mu def ak troupe bi aussi da nga leen di bàyyi wala da ngay continuer di fa dem. waaw duma ko porter plainte dama koy bàyyi yàlla te xam ne yàlla bi nga xamante ne bii moo sàkk doom aadama lay ñëw ci moom bu ëllëgee doon ay ngëneel war a sax ci moom dàq mbindeef mënu ko koo xañ ndax wërsëgu jaam yàlla bi nag ñi ci nekk samay nit lañ. samay nit lañ yàlla mooma boole ak ñu bëggal ma seen bopp ma nekk seen rak nekk seen mag nekk seen doom nekk seen jarbaat yàlla moo ma booleeg ñoom am ñoo xamante ne bii tey yëg nañ lii mu métti leen torop bañ ne ma yow bis boo arrêté xippi bu askan bi ñun ñu arrêté xippi bu askan bi li may wax nii ragalu ma ci dara parce que day génn ëllëg te mën naa dem fu nekk te am na beneen télé boo xamante ne bii tey ji laa fa waroon dem mais dëj bi ma yendu moo tax dew ma ndax du ma yem fii doom parce que daf maa metti mbuboo bi mooy mbuboo laa bëgg mu bàyyi ko sama fans yi muy kar di wax ak ñoom di jël ay xale yu jigéen duñu fanding fanding a ngi nii mësumaa jël téléphone kenn wax ci kenn musuma jël téléphone kenn bind ci kenn SMS nan man la fanding musuma yone samay téléphone samay photo téléphone kenn légui nak dama bëggona xam ba xam man sama numéro dina ko mëna joxé pour sama fans yépp jot ci man duma duma ci laqatu ma jël sama numéro adna ñepp jël numéro bi nga xamantene bi bo wote do jot góor do jot jigen do jot kenn asu ngay jot alias Fandi man ngay jox ma wax ak man lépp loo bëgg ma leeralal la ko ci sama wàllu métier ak li nga xamante ne bi dund naa ko ak ki nga xamante ne moom laa nekk nekkaloon di liggéey ak moom dinaa la ko leeral ci kàttan nga joxe numéro bi booy tàggatoo mais li ñu bëgg nga leeral ñu ko rek mooy ndax tey jii nii da ngay bàyyi turubam bi nga xamante ni moom mi la def jëf ju ñaaw ji moom moo kon moo fa nekk jiite ko wala da nga fay continuer liggéey ba tey waaw wax dëgg yàlla turub bi moom dama koy bàyyi parce que turub bi yàgg naa ci mosumaa xuloog moom gédd mësumaa xuloog moom mësumaa werenteeg moom mësumaa bàyyi troupe bi dem beneen troupe beneen troupe bu ma soxlaa ba invité ma même dinaa ko wax ki nga xam ne mooy suñu directeur mais même moom mi nga xam ne mooy nday mbili gi dama ko koy wax mais tey damaa pare pour bàyyi turubam bàyyi ko moom ci boppam àdduna ak alaaxira bàyyi turubam su ma sañoon sax samay kàddu du ma ko yëkkati di ko jàkkaarloo moom di wax ak moom wala may wax ak moom téléphone dara parce que kuy dund te doo gor kooku jërut jërut xam jërut àndal te doon man gor laa rek dafa yomb doon ko moo jafe man na wax dëgg yàlla man maa bàyyi turubam ba set wicc wicc wicc wicc man Fanding man ku a gisati ci turub boobu ah na dafa tëri dafa doy waar tey bu demoon tey jii ba liggéey dañuy boole tamit ëllëg du doon man lay waxal dina wax ak nga xamante mooy sama manager dina wax ak nga xamante ne bi moo yor sama wàllu liggéey ak lépp mu fay ma temps jox ma paas seeku maag moom lekk seeku maak moom naan yóbbu samay bagage dem liggéeyal ko su ma paree ñibbi si mu jël sama xaalis fay ko fi mu ko war a fay jeex na mais maag moom bëggatuma seq ak moom liggéey ci dara dara dara parce que gor yombul goree di rek moo fi am noonu internet yi dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne bii nii Fanding yëkkati na ko ak leeral yi nga xamante ne bii bëggoon na koo leeral rek ci diggante ñi nga xamante ne bii mooy ay fansam ak ki doxoon ci diggante bi rek di ko mbubboo moom mi nga xam ni moo di Fanding dama lay laaj question bu mujj rek bàyyi la nga tàggatoo mooy que euh, gannaaw ba bàyyi nga troupe boobu fan la la sa fans yi mën a xaar waa fiñ ma mën a xaar bëri na ndax maa ngi tourné maa ngi nekk ñaari tournage yoo xamante ni bi ay projet jàmbur la koo tudd parce que yëfu jàmbur la waaye léegi léegi léegi ñu commencé maa gisaat ma nekkaat fi ma nekkoon parce que lii nii dafa may gën a yokk jom pour sama ay fans. nañ la xaar tamit ci téléfilm yi nga xamante ni bii nii moom moo fiy daw jamono ji waaw yaakaar naa ko de parce que affaire yi moom gëm-gëm la rek ak mën-mën te xam naa ne li samay morom mën néew ma lépp mën naa ko de mais am na lu ma yàlla mën loo ba tax na am naa yaakaar ne tey fépp fu ñuy dégg artistes yu mag yi duma tudd turu kenn nag. garaawalu ma ko ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey baay mais fépp fu ñuy dégg turu artiste bu mag bu siiw man ñaan naa yàlla ñu dégg ma fa te gëm naa ne dinañ ma fa dégg ndax wax dëgg yàlla bëgg naa ko te tamit li may def ku ko seetaan di nga xam ne mën naa ko. Mhm. Aïcha mi ngi noonu ñu daal lay bàyyi nga tàggatoo. waa xanaa may tàgguwaat sama fans yëpp waa maa ngi tàggu sama fans yëpp. ñi nga xamante ne bii ñi ngi dakaar fii bëgg maa gis bëgg maa dégg te mënuñu maa dégg jeex na tey di ngeen ma gis te di ngeen ma dégg am na ci ñoo xam ne ñi ngi nekk fii ba États-Unis damay déggante ak ñoom am na ñoo xam ne jox nañ ma sax ay famille fii ci Dakar may déggante ak ñoom di ànd ak ñoom foto ñu koy envoyé seen fa seen frère yi nga xam ne wala seen maman yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew nekkuñu Sénégal yéen ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla fi ngeen nekk yàlla ngeen fa liggéey ci jàmm jóge si waat jàmm ñibbi Sénégal fii sama numéro téléphone nag dinaa ko joxee léegi léegi nii ma bëgg su ma ko joxee ngeen affiché ko mu daw ci suuf 77 111 84 20 boo ci wootee di nga jot Astou Diouf 77 111 84 20 mooy sama numéro boo fi wootee doo jot kenn man mii nga xamante ni man nga bëgg man tamit ma raw la man ngay jot maa ngi nuyu sama fans yëpp di leen ziyaar di leen màggal di jéggalu tamit di jéggaluwaat bu baax a baax a baax a baax yéen tamit ma leen di ñaanal jàmm bu baax ci dérangement bi jaajëfandi ñu ngi lay jaajëfal yow tamit bu baax a baax ami internet gis ngeen tey naka lii laa leen indi loon ci doxantu bi dama leen di jox dig daje rek à très bientôt incha allah di gërëm bu baax a baax Azou Pro sama rakk ji moom lu mu filmé wul lu ne rek baaxul rakk ji jaajëfal naa la bu baax a baax internet yi prochainement incha allahu rabbi